ni kay booy duñ ko dugal. On a vécu des moments atroces. Live.

ak opération ci état major au commandement de la gendarmerie nationale. du 26 euh, novembre au 28 les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale. prison privée. dañu sonn waaw on a vécu des moments atroces yoo war a liggéey war a am Sure, chef dañu sonn ñu maar maanaam maar ñox bu un an lañ fi nekk lu ñu yónnee mu lekk ko. dañ soxla photo yi dañ soxla photo yi parce que ñëpp kenn fi ab téléphone ban moo tax. ñu waat kenn ngeen war a woo RTS benn benn benn maison de presse ngeen war a woo mu ñëw. Amadou Touré laa a Amadou Touré maa ngi dëkk fii Waagu Ñaay. Waagu Ñaay. Waagu Ñaay deux fii. Waagu Ñaay deux Amadou lan moo la mën nga wax lan moo la yóbbu base bi. waaw ah, sama yaay nee na ma moo tax mu yóbbu ma foofu pour de temps là-bas. 23 mois laa fa def. 23 mois. waaw mooy ban mooy ban ban période bi nga 2019 laa fa dugg xam nga 2018. 2018 xam nga xam nga doo sax kenn nga. waaw gis nga. waaw ba dem tere man ba dem jaay. doomu kool la moom la jaay yamba ci ma jaay benn lakk si koon téeméer dama jaay paquet yamba bi mu lay jaay paquet du koon laxasu koon cinq cent laxasu koon cinq cent li jar juróomi dërëm si biir cinq cent la ma koy jaayee dama jaay paquet yamba bi mille ma fa nekk yow vingt trois mois yëpp chaque jour mais gis ñu fa jàpp dóor dóor. ñu leen dóor bu baax ba seen taat yi dagg. mos leen gis mos leen gis ñu koy ñu koy mos wala dara. bëri na fa bari na ay évasion yu am sama kanam ay cinq évasion ba pare seize personnes dee nañu sama kanam. seize personnes seen seen tur ngi nii ñoom ñëpp sama kanam lañu deewee ñoo ngi nii. seize personnes yooyu day intéressé na ma de am ah, sama kanam lañu deewee ñoom ñëpp. sa kanam lañu deewee ñoom ñëpp laa sama kanam. mais seen i mbokk dañu leen jël si. dañuy ñëw paqueté leen jël yóbbu morgue lii lépp sama xarit lañ demee seize par da ko bind ko G7 bi. dama ko bindoon xam ne lii mënut a ñàkk. waaw ndax fii dañuy ñëw comme dañu ñëw brigade de recherche ngeen jëm nga xam ne suñu ñëwee dangeen dangeen amal solo. waaw waaw ñun ñëpp fa la ñu deewee. xaar xaaral ma dem négligence moo leen jàpp dañuy dee fii xam nga ñi war a dem hôpital yóbbu ñu leen ñii du wàcc foofu ñii seen biir yi di daw foofu te amuñu benn toppatoo ñii di neewi di dee nii. bu dee ñu jël dugal si seen oto paqueté yóbbu benn morgue neexal élément bi sa parents yi ñëw. mais amul kenn suul am na ñu wax ne dana am ñuy suul foofu en face base. non loolu moom fekkewu ma ko sama kanam la ñu am na ñoo ne ma presque huit yi maa at ba si buntu ñu dugal si oto yóbbu mais mënu ma la fan lañ leen yóbbu. d' ñoom ñëpp ñoo ngi nii. ñii ñëpp sa kanam lañ deewee. ñii ñëpp sama kanam lañ deewee. d' accord waaw ñii ñëpp sama kanam lañ deewee Cheikh. d' accord merci beaucoup mais lan la sa mot de la fin lan ngay lan ngay tëjee. non mot de la fin pour suñu parents yi xam ne yow sa doom soo demee ba di ko yóbbu si bërëb sax nga seetu man fii ma koy yóbbu lan fan lay tëdd ak lan lay dundee lan lay lekk ak nan la fiy nekkee ndax soo jëlee xar sax duggoo ko si benn enclos ni nga ko ñëw xool mais jël sa doom rek sànni bàyyi ko si ay loxo yoo xam ne ñoo la a doyee xam nga ndax xale soo ko bëggee yar na nga koy gën a yaru te yow tey mënoo ñu yar tey ba pare yow mënoo yaru wala nga jël sa doom muy def na ko si noonu nga ne da ngay yar ay doomu jàmbur hypocrisie day taxaw amaana na tey yàlla moo ate dogal lii nii affaire bi waroon yem fii ko seen loxo loolu nag ñaa leen siy sant bu wér di leen si